waaw nii tamit damaa sonn ah Macky Sall xool la foo romb jigéen bu am doole am biceps am caaj nga ne di ko jox ay ay kii pour mu nekkal la classement mbër maa newul mbëru kenn man maa newul mbëru kenn falaa yem nag dimbali leen ma rek waaw kay bu ma kenn du gis nga chocolat bi may lekk. jën yi sax léegi marron beige waa dëkk bi lii lan la tamit laq la wala xam la tamit ah dañoo sonn xoolal da ngay dox nii da ngay dox nii mu lay jox xool leen lii lii yoon la lii lii tamit marron beige ah dee ko def ay gesneer ay cuubu palmaan cent cinquante mille dee ko def loolu muy neex waaye lii marron beige sonoon sonn nañ ci maron beige ah man boo ma doon jox gesneer bàccu bu palman bu 150 min ma campagne la way li nga may jox ni lu ma sax pak jaar nek ci campagne bi di campagne dama <laughs> yalla bal waaye ma dem fay man yow lay waxal ci wa ka gis nga dañu sincère de li ma doon wax ci sokolaa bi mu ñëwaat gis nga di doy ak peinture marron beige ëpp man nak marron beige mom daf ma allergie fi mu ne nii rek ba oto bu tooj ba ay sëva muy fëlaale nii tamit di sàndee di def lu ma neex waa ma leen fay yow yaay nday ji seex njaaxaanaay ngay tëddee bu ma kenn tëj nag yow laay waxal bu ma kenn tëj askan wi rek laay waxtaanal te si yi tamit ñu génnee ndoxam si ni waat tamit xam nga ma Macky dafa baax te baax nag dégg naa danga kaa yeyoo loolu sax ëpp na waaye nan ko waxtaanee waxtaanu biir ne mu bañ a génn daal ndax yow dangaa baax mais na nga fexe nag ba buñ la falee rek bu fi tabax kaso yi marron beige caabi yi marron beige lépp marron beige libéral nit prison yi féex nit ñi am seen liberté waa dëgg neexul tamit ah tëj bi rek ngay wàññi foofa waaye maa ñëwaat nii tamit ah lii dëgg du yoon bëgg nañ laa campagne lool gis nañ def nga fi métro def nga fi eh, feene avion yi di wàccee dama ko mënta wax lépp def nga ko fi mu mu mu normal loolu Macky liggéey nga dëkk bi kenn wér ko autoroute à péage autoroute xawma Ila Touba lépp yaa ko defar kenn weddiwul waaye makki Sall nan waxante dëgg nag ak ñi lay campagne lii tamit lii lan la lii tamit lan la ah man bu doon nekk jasneer baa palmaan dina ma arrangé waaw kañ waaye lii tamit danga koy sol sa ndoxum si bi génn nañ waxante dëgg chocolat boo koy lekk marron base ay jën marron base waa ay nit marron base kon ñun fan la war a dem ah léegi xool nga ma am doole nga bëgg maa classé si mbër yi merci waaye man duma campagne noonu de joobee ma noonu man lii man dama ko joobeewul lii joobee ma ko de musuma koo joobee yow jom yow laay waxal. Sonko <laughs> du ma toog ci ay caaxaan xool de waaye yi dañ ñëpp dañoo tukki woon lu ñu ñu bisi parce que réew mi neex na gaz baa ngi fii pétrole baa ngi fii ah, ah lépp clean mag yi mu toogee ba léegi dégguma gaz manqué ah. mag yi bi mu toogee dégguma suukar manqué courant coupé ndox baa ngi am hmm. benn fan da la coupé sept ah. benn fan la coupé mooy mooy barke